waaw mais xaar nga nuyoo. wala si jàppoon mu nuyu sama kilifa la bi baax mais su daan si rek da ngeen war a am taxaw. juróom benni junni aaya ak benni téeméeri aaya ak juróom benn ak juróom benn wax naa leen léegi bi daaw bi nga xam ni maam El Hadj Malick moo ko tere nit bu ne faatu nañ ko jàngal bi daaw bi daaw du ci bismillahi rahmaani bisimilahi rahmaani rahim la ak fukk ak ñaar loolu mooy saari alquran saari alquran képp koo xam ne nar ngaa dem sawara wala safaan ba buñ la loolu yàlla dana la yërëm ci kattanu ak mbaaxam kon lu ma war a wax wax naa ko di la gërëm tey ñaan yàlla yàlla fi yàlla bàyyi yàlla may def ba nu ak wér lii nga liggéey itam mottali kóolare sam moroom mi mbër yi yàlla nañu xool ci yow roy ci yow ba lii nga defal soxna yéen ñi ñoo defal seen bopp wax dëgg yàlla jàmbar ndax lii mën naa la ci bañ rek waaye ne yàlla moroom ñu ak rafetal ba nga xam kii yéenam yàlla yeggal yeggal yàlla bu yàlla bàyyi mbër yëpp itam nañu roy ndax lii nga def nga waxuma la mbër waaye ñëpp ci war a roy parce def saalal nga fi ndax bëgg yaay xale bi kontaan jërëjëf maa ngi lay sant maa avance ah, avance maa ko yar parce que nit su demee bi am 15 ans rek lépp lu ñuy def ci yow def nañ ko ci yow ci 15 ans la jóge ci sama loxo bon nag maa ko yar waaw ni nga nàmpatalee Siteu ba tey jikko ji Siteu am ak tabe bi mu am ak social bi muy def ci réew mi ak lu wax lu muy def ci réew mi lu mu donn la ci ay maama lu mu donn ci ndeyam wala ci baayam. ah na def ko donn de def ko donn ndax baayam moom mënoon naa am ay meuble meuble yu bari meuble yu bari waaye doomu aadama yi moo tax amul dara dee si amul luñ ko doon ndax doomu aadama yi lu mu amoon. suba ba ngoon jot nit ñi ko bàyyi ci loxoom bon nag su sita ju doo mel nii ah du ma jaaxal waaw waxuma man de baayam laa wax waaw baayam lu mu amoon suba ba ngoon jot nit ñee ko moom waaw lu waaye def nag sa bopp kenn du tagg sa bopp waaye Siteu daal mënul bon mënul bon te mënul téye lu mu moom lépp lu mu moom daf ko war a bokk ak nit ñi ndax doomu aadama su ko yàlla joxee tuut amul dara nag yàlla la am amul dara tey su amoon million tey nit di taxaw balaa guddi mu jeex yow xam nga ci dara bon nag ah, dañ koy sante yàlla rek ndax mënoon na koo am denc su boobaa kenn mënu ci dara mënoon na koo am itam du ko dugal fu neexul yàlla waaw comme mu ngi koy dugal fu neex yàlla rek sant yàlla sant yàlla bu baax. yaay bi nga duggee ci kër gi. Mhm. bi nga duggee ci kër gi ak li liggéeyee kër gi. yëg-yëg bi kontaan rek kontaan rek ndax damay wax ne toujours li nga gën a bëgg ngay defal nit nit ki bu ko defal loo bëggul li nga gën a bëgg ci àddina moom ngay defal nit ki te lii mu defal Fodé xam nga ne defu ko ci këram déedéet bon nag mu def ko fii sant yàlla la ndax këram ngee mu am moomu ko waaye kër gii dina ko fekki àllaaxira yal na doon ci këru àjjana yi si kër gi mu njëkk ubbi doomu aadama dugg ci ami xolam bi ni muy seddee ci kër gi si yal na yàlla defal ko léppam seddee nii te léppam naatee nii ci kàttan yàlla ndax xam naa ne su amee rek ñëpp am si ta bés bu amee rek ñépp am amul dara nag amul dara dërëm du fanaan ci poosam waaye xam naa ne bés bu amee a ah, doomu aadama yëpp dinañ am yal na ko yàlla dimbale dimbale mboolem jullit bépp doom boo xam ne rek yor nga mébét bi ci lu baax yàlla dimbale la nga am wax dëgg yàlla ndax kenn ku nekk bëgg nga lu baax kon nag yàlla na yàlla defal ñépp lu baax. ñoo gis mu ko def gis ku ko def ci àdduna nga am man su ma laaj du ma ànd ak sama sago ma xel waa loo wax miskit du ci soos te salaat kenn du ko rosi jëmm ji luy wal na gor bu ko séenee ŋaang man père du ma jooy sax ku dee ñu ñëw ñu ñëw nañu xawa wàññeeku ci bi ñëpp toog dara jay bàyyi Sidi Mbacke alxuraan kii ba ma koy xam aw ma sikkim ba ma koy xam aw ma soxna. mais si ñëpp na toog père Mat si toog. si ñëpp laat indi leen benn chaise si sa toog nii seen biir. naa fekk mënu kaa man bu ma yëkkatee sama voix nga ne Cheikh Béthio sama maam. indi leen ñu beneen chaise bu ko defee Siteu mën na ñëw fii ci baas bi. ci ñoom Pape Mayel. dama bëgg ñu ñaanal ko gudd borom bi subxanahu wa taala bàyyi kaak ay àndam yàlla bàyyi ñoog suñu sogo ba ñu eggale léegi nag arrière leen génn leen da ngeen génn nag ngeen may. Eh, léegi gars yi gars may leen ma fii rek may leen ma fii. Eh, gars may leen ma fii may leen ñu fii suñu diggante yi. bi la jënd terrain bi. ko nag. ma ne ko médiatiser ko bu ko defee nit ñi soxla la xaw bonne volonté. ndax lii boo ko bëggee song yow rek day métti day métti mu def loolu ku am sa déem dugal ku am daxaar dugal ñu sot na ko daal yoo xam ne lu baax rek la ñu bëgg dëgg la mais taxul bàyyiwul benn yoon ànd nañu am ku ne ko Siteu doon nga ma woo jotoo ma lan la woon mu ne ko ñëw ñëwuma pour nga dimbale ma de kër Fodé gi laa bëgg jamono yi ñu toll moom rek mooy sama sama yitte mooy sama yitte mhm. dama bëgg ñu fet mu yegg mhm. loolu ànd nañ ma koy wax benn xaritam xaw ma xaw ma nan défoncé xaritam Mansour waaw mhm. kon moo lay won ne moom ku sincère la ci ñi muy àndal mais ñun ndam liñ ci am mooy bu ñu amee bés ñoom ma di ci sonn dañ naan waaw max ni muy def ci xale yi man xam naa xale yi ma àndal waaw waa tey lii ci kër këri kilifa diine ñoo ko daan def lii nii lii nii tey moom mu def ko kon ñi ñu àndal ay xale lañu. Mhm. mais ay responsable lañu.